بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sëriñ Fàllu ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi ñuy teewlu ñëpp di jégalu ci kàddu gi nga xam ne dafa gaar ñu xam ne docteur Abdou Lahad Sané moom moo ko waroon a taxawee far yàlla dogal mu am ngànt waaye comme ni nga ko waxee rek dayre bi moom du bëgg di neenal benn ngoon ginnaaw sas la woo xam ne dañu koo tàbbi tas ko suñu bopp ci ndigalul sëriñ bi dañu jàpp ne saa yu ngànt amee rek danañu xool lu baax luñ ko war a wutale loolu moo taxoon bi ngànt amee léegi ñu ne nañu xool tomb bu jàpp ni te am njariñ ñu wutale ko waxtaan wi waroon a am xam ngeen ne sëriñ Abdou Lahad mi ngi waroon a waxtaane ci asalaam wal istisna bu li ñu tuddee salaam te mooy rek xeetu financement lay doon koo xam ne dafa bëgg a liggéey te amagul capital ñëw ci ku yor xaalis mu jox ko ne ko demal liggéeyi waaye boo may fay ca la nga liggéey la nga may fay moom ne ab baykat boo xam ne dafa bëgg a bay amagul aw jiw nga financé ko ne ko boo noppee jaay ma ci nangami barigo yi dugub wala nangami barigo yi wala nangami kilo yi gerte loolu mooy salam mu am nag ay charte yu bari am ay ponk am ak wuute gu rëy gu ci am ci diggante borom xam-xam yi am ay masala ba ca tege woon mooy al istisna te mooy liggéeylu rek liggéeylu koo xam ne da nga koy jox ay muwaasafaat ay qualité lu mel nangam laa bëgg bàyyi ko boppam mu dem liggéeyal la ko tomb boobu la ñu waroon waxtaani waaye nag ginnaaw ngànt dafa gaar ñu ne woon nañ ko wutal beneen tomb boo xam ne waajaloon nañ ko ba noppi te muy jukko yi rafet yi ci njàngaleem sëriñ bi ak yan jeexit la mën a am ci wàllu koom-koom wàllu économie loolu ci gàttal mooy tomb waxtaan wi kenn ku ci ne xam ne ne jukko moom ak i teggin dafa am wàccuwaay bu mag a mag ci njàngaleem sëriñ Tuuba radiyallahu anhu sëriñ Mamour Amdi mii bu yàggul rek waxtaan na ci waxtaan wu am solo mën nañoo gàttal wax ne jukko buñ ko waxee jukko rek buñ ko waxee alxuluq bu ñu ko waxee ci làkku arab dafay firi jukko lu nit baaxoo day firi am mbañum rus day firi diine yépp baatu xuluq da koy firi ci làkku arab waaye bu ñu ñëwee ci bu ñu waxee jukko lu ñu ci jublu ku mel ne imaamul Ghazali dafay wax ne mooy melokaan la buy nekk ci nit boo xam ne day sax ci moom nit du mën a dem bàyyi ko ginnaaw mukk melokaan woowu nag saa yuy jóge ci moom day mel ne loo xam ne day ñëw day yomb lu automatique lay nekk du ci sonn bu koy def it du ci xalaat du ko soxla waaye day jékki-jékki rek di di génn ci jëmmam loolu mooy jukko mu ne nag melokaan woowu di génn nga xam ne lu mu jëf melokaan woowu lay wane lu mu wax melokaan woowu lay wane bu fekkente ne li muy wane lu baax la dañ naan kii jukko ju baax la yor bu fekkee li muy wane ab safaan la ñu ne kii jukko ju baaxut la yor kon ci misaal koo xam ne joxe alal daf koo yomb lool nga xam ne bu koy joxe du ci xalaat day jékki-jékki rek joxe kooku dañ naan kii jukkoy tab la yor waaye koo xam ne bala ngaa génne ci moom xaalis wax a wax ba mar comme ni ñu koy waxee kooku dañ naan jukkoy nay la yor bu joxee tëbewut kon jukko lool la jukko lu automatique lay nekk loo xam ne nit ki du ca xalaat du ca sonn day ñëw ci nam gën a jàppale ak nam gën a yombe bu dee nag ay teggin te mooy al adab moom it comme ni ngeen ko xamee ci gàttal mën nañoo wax ne li muy firi mooy jukko yu rafet yëpp jukko yu rafet yëpp dajee ci yow imaamul Xushayri ci ar-Risaala loolu la ko firee mooy ijtimaau xisaalul xisaalil xayr jukko yu rafet yëpp dajee ci yow loolu mooy al adab mooy ay teggin ki ami teggin mooy ki nga xam ne jikko yu rafet yépp dafa dajee ci moom buñu demee ci ku mel ne ibnu xajar ci fatxul baari bi mu saraawee saxiixul buxaari ma ngi fay wax ne teggin mooy lépp loo wax te muy lu baax ak lépp loo def te muy lu baax loolu nag sunu sëriñ bu ñu xool dañu gis ne nim xamlee teggin génnut loolu ndax dafa waxoon ne fi'luka ma nazarta bi istihsaani wa tarku ma nazarta bi istihjaani lépp loo gis ne lu rafet la lu baax la nga def ko loolu ci teggin la bokk lépp loo gis ne lu ñaaw la lu baaxul la nga sori ko bàyyi ko loolu ci ay teggin la bokk faneen mu gën a forom fàcce ne ay teggin buñ la ko doon wax ci classement dañ naan boo gisee ndaw nga yërëm ko ni ko waajuram wu góor yërëme ak waajuram wu jigéen boo gisee mag nga jox ko worma koo xam ne nag yéen a tolloo daraja nga def ko ni sa bopp te lépp loo ci def nga def ko ngir jëmmi yàlla tax tariqatul adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li wajhi xaaliqin alal arshi istawa léegi nag ñaar yooyu yëpp dafa am kon am na lu ñuy wax al adab ay teggin am na lu ñuy wax xuluq jukko am na lu ñuy wax qiima te mooy valeur qiima bu ñu ko waxee ñoom dañ ciy jublu rek lu sax loo xam ne tamit day continuer kon bu ñu nee kii dafa am ay valeur mooy dafa am ay jukko ak i teggin yoo xam ne dafa sax ci moom du soppiku mukk waaye dafay continuer tamit du ko mel tey bu ëllëgee mu mel na leen bu ñu delloo ci alquranul karim dañuy gis ne loolu ci jukko yi nit la bokk ci ni yàlla bindi doomu aadama bi la bokk mooy dafa am ay melokaan yoo xam ne dafay sax ci moom ay valeur lay nekk ci moom nga xam ne du jóge ci moom mukk saa yu defee day feeñ ci jëfiinam saa yu waxee day feeñ ci waxiinam wa maa umiru illa li yacbudu llaha muxlisiina lahu ddiina xunafaa wa yuqimu lsalaata wa yutu zaka wa dalika diinul qayima kon diine noonu la demee qayima la mooy diiney xeet yi diine la joo xam ne dafa sax wala diiney téere yi fi jiitoon diine la joo xam ne dafa sax ba noppi dafa jub ba noppi it luy continuer lay doon am na feneen fu mu waxee diinan qayiman millata ibrahim kon diine xayim la mbiru wëlëx la mbir la moo xam ne dafay sax waaye dafay continuer tamit Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu comme ni ko boroom xam-xam yi defi yépp noonu la ko defee dafa séddale ay teggin ak jukko ay xaaj boo jàngee ci téere yi da nga gis ne teggin yi boroom xam-xam yi dañ ko séddale ñetti xaaj teggin yi jaar diggante nit ki ak boroomam teggin yi jaar diggante nit ki ak boppam ak teggin yi jaar diggante nit ki ak ñi mu séqal dund gi léegi nag sëñ bi da ko séddale ci ñetti xaaj yooyu waaye nag daa koy lëmës ci ñaari xaaj yoo xam ne moom mooy ëmb lépp benn xaaj bi moom lay tudde teggini bit te mooy bi jaar ci diggante nit ki ak moroomam beneen xaaj bi moom lay moom lay wax moom lay tudde al adabul baatin teggini biir huwa qismaani la daddaymaani adabu zahirin ma al insaani wa adabul baatini ma rabbil wara wa yatba'ul baatina ma qad zahara kon teggini bitti mooy rek ni ñu war a jëflante te mu lalu ci ay jukko lii jaar ci diggante nit ki ak boppam ak lii jaar ci diggante nit ki ak ñim siqal àdduna bu ko defee bu fekkente ne teggin yi jaar ci diggante nit ki ak boppam la solo sa mooy day tax nit ki defaru daf koy génne ci ay ayib ak i jukko yu ñaaw setal xolam ci ay keñaan ak i noonoo waaye tamit dugalal ko ay jukko yu baax tàmmal ko ay melokaan yu baax ak jëfin yu baax teggi ni nit ak boppam loolu la koy jariñ loolu la koy jariñ kon da koy defal li ñu tuddee taxliya bu noppee defal ko li ñu tuddee taxliya day génne ci moom lépp lu lépp lu baaxut waaye di dugal ci moom lépp lu baax bu dee teggi ni bit yooyu nga xam ne nit ki dafa daf koy am ak boppam bari na bokk na ci teggi ni nelaw teggi ni lekk teggi ni nit ki buy dox teggi ni ni muy nuyoo ni muy ziyaare ni muy dialogue ni muy yëgloo buy dugg fenn ni mu war a dammee ab gisam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne sëñ bi tudd na ko ci naaju xabaayil xaaj danañ ci gis ay exemple ak ni muy impact bi muy am ci wàllu économie bu dee teggin yi nga xam ne moom la nit ki séq ak moroomu nitam nag moom it bari na comme li mu war a séqee koo xam ne moo ko mag ci at wala koo xam ne moo ko féeteeg ndaw koo xam ne moom la tollool teggin yi war a jaar ci digganteem ak i waajuram diggante moom ak i waajuram diggante moom ak borom xam-xam yi ak digganteem ak nit ñi ñëpp loolu mooy al adabu zahir maal insaan moom it lu munta ñàkk la ci nit ku ne waaye lu munta ñàkk la ci mbooloo mu ne moo xam muy ndaw moo xam muy mag moo xam muy borom xam-xam moo xam muy koo xam ne àlliwoom soriwut moo xam muy kilifa moo xam muy ab taalibe ñëpp dañu war a am al adabu zahir maal insaan bu dee teggin yi jaar sa diggante ak sa borom nag Sëriñ Tuubaa tënk na ko dafa waxoon ne amal adabu baynaka wa bayna rabbik fa an tamtasila amra wa tajtaniba nahya wa tashkuru ni'mata wa tasbira ala balaa'ihi wa an ma'siyati teggin yi jaar sa diggante ak sa borom mooy lum la digal nga ne ca lum la tere bum la fa gis lum la defit defal la ko nga sant ko ca lépp loo xam ne dafa tegu ci sa kaw muy balaa wala muy musiba nga muñ ko fexe it ba doo def ak mooy mooy lu mu neex neex ak lu mu jàpp ni jàpp ni nga sori ko ngir sante ko waaye muñu ko daan ne ñaawal ay teggin sa diggante ak sa borom mooy nga bañ a topp ay ndigalam di def ay tereem wala lim la xéewale nga koy weddi wala mu teg la am natt nga bañ koo muñ wala nga di ko moy lii nag nit ki nag bu fekkente ne dafa ñaawal ay teggin digganteem ak boromam lu mu ko mën a indil ci ni ko sëñ bi waxee dafa wax ne wa hiya tujibul xijaaba an rahmati day jaar diggante nit ki ak yërmaande suñu borom wa tarda min baabi magfirati njéggalu suñu borom it daf koy xañ nit kon nit bokk na ci kon li ko mën a jegeel yërmaande yàlla man koo soreel mbugalam waaye mën a tax ba muy am njëgalu suñ boroom mooy mu am ay teggin ak moom ci ni ko sëñ bi jàngalee teggin nag am na solo lool ci lislaam yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ñëpp jàng nañ ko waaye jan solo la am ci njàngaleem sëriñ bi bari na sëriñ bi dafa jàppoon ne nit ki moom li muy am ci àdduna la ci gën a gànjaru gën caa riis gën caa am solo mooy mu am ay teggin ci la nit ki ci ay teggin rek ak jukko yu rafet ci la nit ki mën a àgg ci yàlla ci la mën a amee aljanna tamit i'lam xabaana allahu fi daarayni bi fadlihi subhanahu nuurayni bi anna xayra ma bihi izdaana alfata talaazumu al adabi xaytu ma ata nit ki li gën a gànjaru ci lu muy taaroo mooy mu taqoo ak i teggin fu mu mën a ne ak lu mu mën di def li annahu bihi ila arrahmaani yasilu abdun wa ila aljinaani ci la nit ki mën a àgg ci suñ borom ci lay mën a amee àjjana fa kullu man bi gayrihi raaman wusul li xadratillahi fa gumrun la nabiir képp koo xam ne dafa dafa wax ne dafa bëgg àgg ci suñ borom te jaaru ko ci yoonu teggin na xam ne yaramam neexut yaramam neexut wa nataqu bi annahu kaada yakun sulusay diini fa fadluhu yabin dem nañ ba wax ne ay teggin ni muy toll ci diine mooy boo xaajoon diine ñetti xaaj ñaar ya la koy mot li mooy ay teggin kon teggin yu rafet jikko yu baax ci sëñ Tuubaa daal mën nañu jàpp ne lu baax yépp fa lañ ko mën a amee ci la nit ki mën a amee addunaam ci la mën a amee àllaaxira mu wuteeg nag ñaawi teggin yi nga xam ne moom ay lor rek lay jural nit ki ak yaakaar ju tas loolu moo tax sëñ bi waxoon ne mbir lu mu sori sori sori ku ko sàkku jaare ko ci ay teggin mën nga koo am waaye mbir lu mu jege jege jege ku koy sàkku jaare ko ci ñaawi teggin suñu borom mën na la koo xañ kon ay teggin mooy lépp loolu moo tax daana ci dénkaane lu baree bari ci ay way ak ci ay wisar daana wax ne lazim dawaaman xubba xusnil xuluqi wajtani bad na dahra suu al xuluqi daana wax taalibe yi naan leen day leen am ay teggin ci lu nëbbu ak ci lu feeñ day leen am ay teggin seen digganteeg suñu borom ak digganteeg mbindeefam yi day leen yërëm na mag ñi yërëm gone yi na gone yi teral mag ñi te di leen jox worma te addabu fi alanin wa sirri ma al ali wa xulqihi bil birri faltal xamil kibaaru jumlat al sigaar wal tukrimu sigaar wal tukrimi sigaaru jumlat al kibaar am na dénkaane bu am solo boo xam ne mi ngi ci majmua bi boo xam ne dajal na yooyu yëpp mooy ndénkaan bi nga xam ne dafa tàmbalee ci yaa taaliban ridan anil xalaaqi laazim bihi makaarimal axlaaqi daanaka ku bëgg a xam rek solo si sëñ bi jox teggin boo demee ci ndénkaan boobu dana la ko leeral forom fàcc na ko wax na te ay teggin ci yi ñu war a am ak ci alxuraan ak alxuraan yi ñu war a am ci bu ñuy sàkk xam-xam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci ndénkaan boobu léegi nag jukko ju baax ju rafet ban solo la am ci wàllu koom-koom dawrul qiyam al axlaaqiya fi tarshidi suluk al iqtisaadi suñu comportement ci wàllu nit ñi saytoo alal jukko ju rafet ban importance la ci am bala ñoo dugg ci loolu mënta ñàkk ñu junju mbir moo xam ne économiste de économiste yi yàgg nañ cee werante mooy ndax économie am na relation ak i jukko wala amuñu relation bu ñu waxee nag jukko ci wàllu économie jubluwuñ ci rek lu may nit ki li muy def muy jóge ci moom te diine di ko ko sant ban jeexit la war a def ci ni muy jëflantee ci wàllu alal loolu lañ jublu ci al axlaaqiya ala al mustawa al iqtisaadi loolu lañ ci jublu loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor économie classique bi nga xam ne ñoo fi nekkoon lu yàgg seeni mbir tënkuñ ko ci diine dañ cee wute ndax économie am na relation ak i jukko ak i teggin wala amut relation ak i jukko ak i teggin am na ñoo xam ne dañoo gëm ni rek jukko séqut ak économie dara ñu baree bari ci ñi nekk ci réewi tugal tey ay gëstukat loolu lañ jàpp ñoom dañuy wax ne ilmul iqtisaad ilmul muhaayid xam-xamu économie xam-xam la boo xam ne séqut ak lenn dara xam-xamu boppam la mooy dem ak boppam ndax dañ naan xam-xamu économie day gëstu ci li am ba noppi waaye du gëstu ci li war a am xam ngeen ne jukko nag moom danaan la lii bu amee tabaax mooy la kon lii moo war a am bu amee tabaaxut mooy la nangam moo war a am bu dee xam-xamu économie nag fii ma huwa kaa'in fi'lan faqat li am ba noppi lay seet nu ñu koy saytoo bu dee wàllu jukko nag li war a am lay wax bu fekkente ne li am baaxut loolu moo tax ñu baree bari ci ñoom jàpp ne économie ak jukko ak wàllu moral wàllu wala amuñ benn relation am ci ñoo xam ne dañ ne déedéet économie kat mënta dem sans jukko ndax lan ndax dañ naan économie suluk la comportement la nit ki ni muy jëflantee ci wàllu alal comportement la jukko tamit comportement la kon ñaari comportement yi nekk ci benn nit ki mënuñoo teqali ko nit lu mu def ak lu mu wax xalaatam ya koy orienté daf ciy feeñ dafay feeñ ci wax yi dafay feeñ ci jëf yi kon ci gàttal loolu ab gis-gis la bu ñëwee nag ci li ñu tuddee économie islamique al iqtisaadul islami ñoom dañoo jàpp ne kenn mënta wax économie ci wàllu lislaam ba noppi teqale ko ak jukko teqale ko ak diine mënta nekk ndax kat wàllu koom-koom ci lislaam jukko rek moo ko lal jukko rek moo ko lal ndax xam nañ ne diine lislaam moom du teqale diggante économie ak jukko du teqale diggante xam-xam ak jukko politique ak jukko xare ak jukko lépp loo gis rek mu am rek dafay ànd ak jukko du teqale diggante matière ak ruux mooy li ñu gis ci kaw ak li koy yëngal ci biir mun ñoo teqale ko te it loolu li koy wane mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko yónnee bi mu ñëwee dafa wax ne dañ maa yónni ngir ma mottali jukko yu rafet yi kon lépp lu nit ki def rek bu dee ab jullit la jukkoom da cay feeñ jukkoy lislaam da cay feeñ kon jukko mënta dem moom dong waaye dara it mënta dem te am rek jukko économie jukko yi kase la moo xam ci ay principe yi ko tëral yi ko lal moo xam ni ñu ko nose moo xam ni ñu koy analyser bu mu ci nekk bu mu ci mën di doon jukko moo ko lal dëggu da cay am sellal da cay am jub am kóolite sopp ki ngay jëflanteel yërëm ko di rafetal jëm ci moom jàpp ne yéen a bokk lépp solidarité yooyu yëpp ay jukko la yooyu yëpp ay jukko la te nag mënuñ fee gis benn économie bu dox te jukko yi lalu ko booy xool boo duggee ci wàllu économie di jàngat yoon yi mi jaar yépp bu dee ci lislaam jukko moo ko tër buñ ñëwee ci wàllu liggéey intaaj jukko moo koy lal buñ ñëwee ci wàllu liñ liggéey ñu fexe bam tusaaroo ñu koy jokkalante jukko moo koy lal même bu ñuy li ñuy liggéey sax bu ñu koy jëfandikoo waat jukko moo koy lal nga xam ne nit ki daal day mel ne activité économique bu mu def rek ci lislaam ci jukko lay tër ba ci sax xeeti baat yi ñuy jëfandikoo ci suñu biir diine ji dañ ciy seetlu wàllu jukko fu mel ne murid yi bu ñu wax dañuy wax kas bul xalaal fàggu lu lew kon jëmmi baat bi rek day wane ne kon fàggu war naa am waaye li ñuy fàggu dañ koo war a tër ci ay jukko bam lew bu ñu wax ci wàllu joxe àddee wala ñàkk jariñu wala nangam ak nangam ak nangam da nga gis ni yépp ay jukko moo ko lal bu ñu wax ci wàllu istismar li ñu am nan la ñuy def ba investir ko dañuy wax al istismar al islami boo xam ne dafay tëggu dafay tënku ci lislaam te loolu kenn ku ci na xam ne ne jukko moo koy moo koy lal kon daal ci gàttal xam nañ ne jukko moom mënta ñàkk ci wàllu économie léegi nag solo sam ca am mooy day tax bu ñu bàyyee xel jukko rek day tax toujours saa yu ne wàllu ruu gi li ñu war a bàyyi xel ci suñu diggante ak suñu borom dafay ëpp doole wàllu matière bi duñu rek topp ci gannaaw alal di daw waaye alal duñu topp ci ginnaawam day fekk ñun chargé wu nañ ci ay jukko ci ay teggin ci ay melokaan loo xam ne yoo xam ne loo xam ne wala boog yoo xam ne danañu mën a may alal ji ñu sàkkoo ko ca anam gëm gën a rafete waaye buñ ci jotee ñu mën koo saytu ca anam gëm gën a rafete buñ demoon ba koy consommer wala ñu koy séddalee ñu mën koo séddalee ca ala ca anam nga gën a rafete nga gën a mate ci gàttal loolu mën nañ koo tënk ci wàllu googu lislaam kon lépp jukko la boo gisee muy araamal yenn di araamal riba di araamal naxaate di araamal yeneen ak yeneen ak yeneen bu yoxul faasida yi nga gis yépp xeeti njaay yi nga xam ne dinañ la yàqu na baaxut xeeti société yi nga xam ne dinañ la yàqu na baaxut yooyu yépp la tax mooy dafa wute ak jukko bokk na ci jukko yooyu nag jukkoy biir loo xam ne dañ koy tuddi al axlaaq ar rabbaniya wala teggini biir gi sëñ bi doon wax teggini biir yooyu bokk na ci gëm yàlla gëm yàlla sëñ Tuubaa jàngal nañu ko ba tàyyi ak ragal yàlla gëm yàlla ak ragal yàlla nag ban jeexit la mën a am ci wàllu économie sëñ bi bu ñu xool am mbindam danañ gis ne wàllu gëm yàlla ak ragal yàlla wax na ko lu baree bari waaye it wane na ne wane na importance bi am ci wàllu fàggu alal ak dépenser alal daana wax ne dee leen yeesal seen gëm yàlla di taqoo ak ragal yàlla ndax ñaar yooyu rek mooy jumtukaay yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a avancer jëm kanam mooy tax nit ki mën a am barke ci li ko yàlla yi wërsëgal mooy tax it mu mën a mucc ci balaa yi ak fitna yi kunu mujaddidiina lil imaani fal taqra'u al qur'aana bil imaani loolu daana ko wax ci gëm yàlla ak jeexe ji mën a am ci économie daana wax ne haakum nasihatan min al muhibb jëlal laabire gii nga xam ne ku la bëgg moo la koy laabire wajjahaha lakum li ajli xibbi nga xam ne daf leen koo jox laabire gi mooy lan mu di ji lay waxal ruumu maan taqwal ilahi bittibaa sunnati sunnati man lii qaada nafan tuula baa na ngeen di taqoo ak ragal yàlla ba noppi di ko jaare ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam teg ca wajaddidul imaana bil ilaahi yakfiikumu ida dawil malaahi dee leen yeesal seen gëm yàlla bu ngeen ko defee rek du ngeen am jenn lor wal tu'minu bi wa'di man lakum damin rizqan wa man aamana bil ghaybi amin kon day mel ni gëm yàlla ak ragal yàlla bu ñu xool ni muy tënkee léeg-léeg nit ki ci digganteem ak boroomam mën naa wane ne xëy na mën naa tax ba loola xañ ko wërsëgam loolu moo tax sëñ Tuubaa daa ciy teg ne na ngeen gëm ne yàlla moo leen bind te moo wax ne dana leen wërsëgam te lim wax nu mu mën a demee day am ab dëxalam du sooy wasa faneen muy wax ne wa saxixil imaana tasxixan jala bi xabari rahmaani jalla wa ala na ngay yeesal sa gëm yàlla di ko wéral waaye it gëm yàlla gi lu mu kawe kawe dafay am it yoo xam ne moo koy accompagner wala himma tarfa kullaha lil xaq gëm yàlla gi bu amee bokk na ci la koy accompagner accompagner mooy pastéef bu mag bu rëy waaye ngir li ngay sàkku nga mën koo am te doo ci ñaawoo sa digganteeg sa borom wala sa digganteeg nit ñi da ngay fexe balal ko ci ak wakiil kenn rek nag la ñuy wakiilu kenn rek la ñuy bàyyee sa bopp te mooy suñu borom subhanahu wa taala wakil bi izzin laa tamil lil xalq teg ca ne bokk na ci gëm yàlla jeexi ji mu indi ci wàllu économie mooy day tax boroom alal doo ko yëkkati rek ngir alalam waaye it ku yurut doo ko wan ginnaaw rek ngir ñàkk gi mu ñàkk wala tuawit rafa dil maalil xatir li ajli maalihi wa saddin an faqir ndax lan ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam kat ba mu defee lu mel nii yeddoon nañ ko ca te loola moo taxoon suuratu abas wàcc ndax dafa bëggoon nit yi àdduna yi dugg ci diine am silmaxa bu ñëwoon bëgg a dugg moom wan ko ginnaaw di wax ak rek nit yi àdduna yi suñu boroom wàcce abasa wa tawalla an jaahu al ama moo tax sëñ tubaa ne is utiba al muxtaaru fihi salla musalliman alayhi rabbun jalla kon gëm yàlla ak bàyyee ko sa bopp loolu lay jariñ ci ketu côté économie day tax nit ki am dignité day tax nit ki am lu muy jomm day tax nit ki am honneur day taxit mu doyloo suñu borom rek boo ko defee ku muy jëflanteel daf cay xool yàlla moo xam muy borom alal moo xam muy ku ñàkk day yemale nit ñëpp it kenn ku ci ne day xool lay àqaam rek mu jëflanteeg yow ca na darjaam toll du jëflanteeg nit ngir intérêt mukk du jëflanteeg nit ngir it ngir ak parparloo wala ngir bëgg dara ndax day jàpp ne moom kii muy jëflanteel bu fekkente ne am na lu mën a jóge ci poosam yegsi ci moom day fekk ne suñ borom namm na ko te la suñ borom namm lu mën a xew day am moo xam neexal nga kam koy jaarale moo xam neexaloo kon gëm yàlla ci gàttal mën nañoo wax ne impact boobu lay def ci économie kon benn énergie la benn doole biir la joo xam ne bu ko nit ki sàlloo daf koy indil ay jukko yu rafet daf koy indil ak xam boppam daf koy indil ay lu muy ay jukko yoo xam ne daf koy orienté ci lu muy jomm ak lu muy néega def waaye nag gëm yàlla kooku saa yu amul rek saa yu amul rek day jeexital ci nit mooy tax li ñuy tudde ay ñàkk fayda wala ñàkk xam sa bopp wala nangam ak nangam ak nangam yu mel noonu ñàkk gëm yàlla ak ñàkk koo doyloo moo koy waral kon gëm yàlla ak ragal yàlla it day tax nit ki jub day tax nit ki tegu ci siraatul mustaqim day tax lépp lu muy fàggu dana ci sédd yàlla lu muy dépenser dana ci sédd yàlla lu muy consommer dana ca sédd suñu borom kon daal ci gàttal mañ nañ ne gëm yàlla jukko la valeur la boo xam ne suñu tubaa jàngale na ko jeexit jooju lay am ci wàllu économie bu dee ragal yàlla nag na ma ko xamlee woon mooy li la yàlla digal nga def ko te yam ca lim na tere nga bàyyi lépp nga xam ne lum la digal fu ñu toll di la ca di la ca gis lim la tere nag kenn du la fa gis kenn du la fa gis al wuqufu inda al amri wan nahyi bi an laa yaraaka mawlaaka xaytu nahaa wala yafqidka xaytu amara noonu la ko suñu tubaa jàngalee kon lépp la lépp rek loo xam ne lislaam daf koo araamal wala mu am lënt kenn waru caa gis ab murit kenn waru caa gis ab jullit ci ni ko sëriñ bi jàngalee ngir nag loolu mën a am nag mën a joxe impact muy gëm yàlla googu ak sàmm sa diggante sa borom loolu moo tax Sëriñ Tuubaa daan dénk taalibe yi lu baree bari ci ñuy sàmmante li jaar ci seen diggante ak suñu borom yaa ayyuhal murid laazimil wara tajma fawaid alladi lhaadi shara yow murid bi del sàmmante ci sa diggante ak sa borom boo ko defee rek da nga lépp loo bëgg rek da nga ko am ci gàttal lépp loo bëgg da nga ko am wax jooju saraana ko kon ragal yàlla li muy dimbale nit ki ci digganteem ak alal mooy day tax mu jub day taxit mu sàmm loolu li muy indi mooy day indi insaan mutawazin boo xam ne day am équilibre àq ji jaar ci digganteem ak boroomam da koy jox ba mu mat sëkk waaye àq ji jaar ci digganteem ak i moroomam it da koy matale ba mu mat sëkk day taxit mu xam ne lépp loo xam ne yàlla daf koo teg ci loxoom daf ko caa wuutal léegi moom délégué la rek bu ko defee loolu li muy indi mooy day tax day xool fa suñ boroom bëgg mu fay wute alal ja mu ko fay wute fa suñ boroom bañ mu ko fay wute wala mu ko fay dugal mu koy sori lépp loo xam ne dafa am lëntiin mu taxaw ca kon ragal yàlla loolu lay indi suñ tubaa jàngal nañu ba tàyyi neen ragal yàlla day taxa am honneur day taxa am sharaf te loolu mi ngi ko jële ci waxi suñ borom ji inna akramakum indallahi atqaakum waxoon na ne ku bëgg tedd nga ak ñaari kër yi te mooy àdduna ak àllaaxira na ragal yàlla ne ragal yàlla nag ba ca gën a kawe daraja ja gën daraja ja ca gën a kawe mooy lépp loo xam ne rek day lor diine nga bàyyi ko fa ala maratibi taqwa ijtinaabu kulli ma fihi dararun li amri diin loolu mooy lan mu ne wa huwa al maasiya wal fudul te loolu mooy mooy yàlla ak di caaxaan suñu tubaa wax na ne suñu problème yi ñu am yépp ci suñuy digganteeg wërsëg ak alal bokk na ca la ko indi te la ci ëpp solo mooy dañoo ragalul yàlla waxoon na ne ragal yàlla jumtukaay la boo xam ne nit ki bu ko bu ko yoree day tax saa yu ne du am njàqare njàqare lu mu am it day dañ jumtukaay la boo xam ne mën nañ cee jaar ba fàggu lu leew waxoon na ci aw waxtaanam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ittaqillah xaytu kunt daan ne loolu nag ni ñu koy firee ma nga ci alxuraan yàlla moo waxoon ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja daan ne suñu boroom xam na lépp barab yépp la fa am xam na ko te kàttanam gi tamit daj na fépp kon nag na nga koy ragal ci di topp ay ndigalam boo ko defee rek lépp loo bëgg dana la ko jox ay ak it di bàyyi ay tereem boo ko defee lépp loo ragal wala nga koy tiit du la du la jege daan ne wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan mën nañ koo misaale ci koo xam ne dafa demoon ci benn barab fekk fa yëfi jàmbur alali jàmbur mu mën koo jël ndax booba kenn gisu ko waaye mu xam ne kat yàlla nga koy gis mu bàyyi fa alal ja dem yoonam nee na kooku la ko yàllay faye mooy wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mooy mën naa fam fam bàyyi alal ja mën naa jug di demaat tase keneen koo xam ne ku am alal la nay lool du leble bu lay jaayit teg tegg lay nekk yadan bi yet waaye alal jam yor yàlla mën na la jaa jotale nam la cee jotalee nag mooy la nga bàyyi woon te moomoo ko te séddoon ci suñu borom rek kon foofu li mu fi bëgg a jàngale mooy boo ragalee yàlla lépp loo bëgg mën nga koo am ak donte sax da nga koy amee ci bunt bu jafe boo xam ne kenn foogewu ko woon daana wax ne xotti baax kenn du ko amee lu may ci ragal yàlla kawteef loo xam ne ñépp a ko yéem kenn mënu ko amee lu may ci ragal yàlla daan ne xotti baax nag dëgg-dëgg mooy nga gis loo moomut bàyyi ko fa loolu mooy xotti baax bi naan xar baax loolu la daana wax ne ku ragal yàlla yàlla génne la ci ku ragal yàlla yàlla génne la ci daan ne loolu mën nañ koo misaale lu mel ne ku xiif gis aw ñam wu neex bëgg koo lekk waaye xam ne moomu ko mu bàyyi ko fa daa di dem yoonam dem ba mu yàgg mu taseeg kuy jaay ñam mu waxaaleeg moom ba mu demee bay jënd ba koy jox njëgg waa ji ne ko déedéet far naa la ko may nee na loolu la koy waral mooy ñam wu neex ba mu bàyyi te moomu ko te xiifoon mën koo jëfandikoo bàyyi ko fa te yàlla rek tax kon ragal yàlla gis ngeen ne loolu lay indi ragal yàlla li ci suñ tubaa wax dafa bari lool yaakaar na mën nañ cee tënk loolu bokk na ci jukko yu baax yi nga xam ne mën naa am impact ci wàllu économie mooy al ixlaas sellal sa diggante ak sa borom te di ko bàyyi xel loo def it te ginnaaw ba ngay seet ba xam noonu la wala du noonu li ñuy wax ixlaas ak muxaasaba ak muraqaba suñ tubaa nag jàngal nañu lan mooy ixlaas ci ñaari wala ñetti baat yu gàtt nee na woon ixlaas mooy ixraajul xalqi min al amal ixraajul xalqi min al amal lépp looy def nga sédd ci yàlla kase génne ci nit ñi loolu mooy ixlaas kon mooy boo bëggee liggéey loo bëgg a def nga bàyyi ca xel yàlla rek ak sàkku ngërëmam nga xam ne daray àdduna du la tax a jug daray àdduna yi du la tax a jëf doo jëf ngir alal doo wax ngir alal doo jëf ngir daraja doo wax ngir daraja ngir aw sant wala garab bu la nit ñi jox wala ngir siiw wala yu yu demee noonu kon daal képp koo xam ne dangaa sàlloo aaye bii dañuy jàpp ne am nga ixlaas aaye bi mooy lan mooy bi doon wax naan qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin lépp lu ma jëf rek yàllaa yàllaa tax sëñ bi dafa jàppoon ne kon sellal mooy ruuwug jaamu yàlla yépp ak jëfi diine yépp daana wax ne koo xam ne dara neex na ko koo xam ne dara neex na ko mu jëf ko rek te yàlla tax koo xam ne dara neex na ko mu jëf ko ngir bakkanam te jëfu ko te yàlla rek tax te loola nekkoon loo xam ne yàllaa ko digle na xam ne lam jëf du ca am dara wal iyaasu billaah daan ne koo xam ne nag li muy def neexu ko mu bàyyi ko te la tax mu bàyyi ko mooy daf koo neexul rek daf koo neexul nee na kooka lam bàyyi du ca am dara donte sax yàllaa ko tere kon li ngay jëf bu ko yàlla diglee te nga jëf ko ngir sa bakkan rek séddoo ci yàlla doo ci am dara waaye li ngay jëf bu ko yàlla teree li ngay bàyyi bu ko yàlla teree te nga bàyyi ko rek ngir sa bakkan te bàyyiwoo ko ngir yàlla doo ca am dara kon jëf yi ñu ngi koy natte ci li yàlla bëgg ba noppi nga def ko te yàlla tax sëñ bi daana wax ci lan mooy àdduna waxoon na ne lépp lu génnut àdduna rek àdduna la diggante bi nga ciy jariñu nag diggante bi ngay jariñu dañuy xool ndax li ngay jariñoo lu arab la wala lu ñu sib wala lu dagan bu fekkente ne dangaa danga cee jar dangaa jariñu ci lu arab wala lu dagan wala lu ñu sib yéene ja mooy mooy wane jëf ja tolluwaay ba mu am ca suñ borom daan ne àdduna ji nga xam ne nag moom lañ ŋàññi nga xam ne lépp lu ci juddoo dañuy jàpp ne lu baaxut la ci àdduna ak àllaaxira mooy lépp loo xam ne da nga koo jëf te séddoo ci suñu borom moo tax daana wax ne yaa saaxi laa tafan li gayrillaahi shay'an fa daaka fi'lu gumrillaahi yow sama àndandoo bi bul jëf dara te yàlla taxut ndax loolu ku koy def dañuy xam ne yaramam neexut ifan li wajhil akramil mukarrimi taxwi alladi rumta wa ma lam tarumi looy jëf na yàlla rek tax boo ko defee da nga am li nga bëgg ak li nga bëgg di ko sàkku ak li nga bëgg te sàkkuwoo ko kuy jëf te yàlla rek tax da nga ko am kon sellal ak di bàyyi xel suñu borom ci wàllu koom-koom kon gis nañ ne leer na nañ mooy ndax day def nit ki toujours day bàyyi xel digganteem ak boromam day xisaab ëllëgam xam ne lépp lu mu def lépp lu mu wax dana tusaaroo suñ borom dana ko bind te danañ ko ko fay loolu nag li muy indil nit ki mooy day tax lépp lu muy sàkku day fexe ba mu dagan day lew lépp loo xam ne dafa araam wala ñu sit ko wala mu lënt daf koy sori bàyyi xel suñu borom booy liggéey dana tax nga rafetal ko waaye dana taxit nga def ko ba mu jag kuy bàyyi xel yàlla lépp looy liggéey dana jag dana rafet niki noonu it dana tax du laaj ñu lay contrôler bu fekkonte ne ñëpp a ngi bàyyi xel suñu borom li ñuy def it ñu sédd ci yàlla rek jumtukaay yu baree bari mën nañ koo mën nañ cee bañ a financer alal ju baree bari muy xeeti jumtukaay yi nga xam ne dañ koy teg ci barab yi ngir muy xool nit ñi mën nañ caa bañ a financer dara ndax ku bàyyi xel suñu boroom jiital ko ci lépp lépp loo def day rafet waaye tamit doo soxla ñu lay contrôler ci yeneen barab wala di la inspecter wala yu mel noonu ndax da ngay am raxaaba daatiya yow sa jëmmi sa sa damir sa conscience sa digganteeg sa borom moo lay njëkk a fuglu wala doomu aadama di wut ay pexe ci yow loolu nag la koy dëggal mooy wa huwa maakum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir fépp foo mën a nekk lépp loo mën a def suñu borom mi ngi lay xool mi ngi lay gis ta ma nga ànd ak yow ca barab ba mën nañoo tënk loolu ci bu ñëwee ci beneen jukko te mooy sant yàlla ak muñ ak jeexit ji mën a def ci wàllu économie bari na trop Sëriñ Tuubaa wax na ci lu dul jeex boroom xam-xam yi wuute nañ ci ban moo ci gën ndax sant moo gën wala muñ yooyu sëñ bi wax na ca masaalikul jinaan ak yeneen barab tolluwaay yi ci boroom xam-xam yi wax daana wax ne ahlu tasawuf de dañoo wute ci muñ ak sant am ñu ne muñ moo gën a kawe daraja ndax yàlla dafa waxoon ne ñii muñ danaa leen fay te kenn du leen xisaab innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaab daane am na ñeneen nag ñu ne sant yàlla moo gën a kawe daraja muñ ndax yàlla dafa waxoon ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante ma dolli leen daan ne man nag wa amma ana man nag sëñ bi fa amurukum bi an tajma'u baynahuma li ma leen di sant mooy ngeen boole di sant ak di muñ ñu ne kon nuñ koy boolee sëñ bi mooy wax mu ne wa kayfiyatu jam'ihima ni ñu koy boolee mooy ngeen di muñ ci leen yàlla sant te mu war ci yéen bu ngeen koy def métti wa cee am ngeen koy muñ lim leen sant te ñu sopp ko ci yéen bu ngeen koy def métti wa cee am ngeen koy muñ an tasbiru ala alwajibaati wal mandubaat li nga xam ne daf leen koo tere te mu araam it lu mu neex neex bàyyi ga ngeen koy bàyyi ngeen koy muñ lim leen tere te ñu sib ko lu mu neex neex ak lu la ci sa bakkan woowoo bàyyi ga nga koy bàyyi nga koy muñ ngay muñ di ko bàyyi wa an tasbiru anil xaraami wal makruh sant gi nag mooy lan mu ne mooy li nga xam ne dañ koo daganal ci yéen yàlla teg ko ci seeni loxo te ngeen mën cee jaar ba mën a def li war ci yéen ak yi ñu sopp ci yéen comme li ñuy dunde li ñuy lekk nga xam ne moom la ñuy mën a consommer ba mën a julli mën a woor mën a def nangam ak nangam yooyu xéewal googu nga ci sant yàlla te it bu xasee tege ci sa loxo nga koy jëflante nga ciy jëflante ak di ko dugal fa yàlla bëgg fa yàlla sant daan ne lépp loo bëgg a bàyyi ci lu araam ak lu ñu sib mooy li yàlla teg ci sa loxo te muy xéewal da nga koy jëfandikoo ca fa ko yàlla bëggee boo ko defee rek mooy sant nga yàlla kon loolu mooy sant yàlla waxaat na ci ay barab yu baree baree bari daana wax ne ci yenn ndénkaane yi dikk na ci mu ne usika bi taqwa wa bi tawakkuli wa sabri wa rida wa qasril amali ma ngi lay dénk ragal yàlla bàyyee ko sa bopp di muñ lo yàlla def mu neex la waaye it di gàttal say mébét fa in atatka niqmatun fal tasbira musiba saa yu dalee ci kaw nanga ko muñ muñ gu rafet wa in atatka ni'matun fal tashkura xéewal bu ñëwee ci yow nanga ko sant laa taltamis nafan wala taxsha darar illa min arrahmani fatiril bashar lépp looy sàkk te muy njariñ bu ko sàkk ci ku may suñu borom lépp loo looy daw te muy lor bu ko dawee ci kenn kudul bu làqatu ci kenn kudul suñu borom daan ne nag kenn mun laa jariñ kenn mun laa lor lu may dafa neex yàlla fa laysa yaati naf'un aw durrun abad min ghayrihi subhanahu fa huwa samad kon bu la yàlla joxee xéewal dee ko sant waaye bu la tegoom nattu dee ko muñ fa kun shakuran inda nayli ni'ami wa kun shaburan fi istidaadi an niqam kon sant yàlla gis ngeen ni moom it loolu lay jur loolu lay jur ci nit ki mooy day tax daal li la yàlla digal da nga ciy sax nekk ci li la yàlla teral da nga ciy da nga koy sori lu la yàlla xéewale it da nga koy jëfandikoo fa mu ko neexee ba noppi di ko ci sant loolu am na ay bayit yu dul jeex yoo xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ko ci bu dee yiy jaar ci diggante nit ki ak boppam bari na waaye mën naa cee tënk ñaar rek muy dundal waxtu waxtu sëñ bi da koo fonkoon ba daf daan dénkaani nit ki noo nooyi du jóge ci moom rek daf ko war a bàyyi xel nooyi du jóge ci moom rek daf ko war a bàyyi xel ndax nee na bépp nooyi gu jóge ci yow rek da ngay jàpp ne wurus la or la bu gànjaru boo xam ne bu xasee jóge ci yow doo ko amaat ndax nooyi ko nit xasa nooyi rek bu nooyee baneen nooyi lay doonaat waaye gi xas génn moom jeex na moo tax nag nee na ginnaaw wurus la woo xam ne boo ko ñàkkee boo ko ñàkkoon tey bu ñu la ko doon jaay mën nga ko jënde njëg bu rëy rëy nga mën caa def yiw wudul jeex kon bu ko sàggane loolu moo tax sëñ bi daan wax ne bàyyi ak nooyi sag nooyi muy dem noonu rek te toppoo ci yàlla dafay tax dafay waral perte nga boo ci moyee yàlla nag loolu moom musiba la mu mag a mag wax na ko ci masaalikul jinaan wakun axi daabital xawaasi ba fa juróomeelu bayit ba kon nit ki dañ naan at mi yépp fukki weer ak ñaar la weer wi fanweeri fan la suba ak guddi 24 heures la waxtu wu ne mi ngi tolloog téeméeri noyyi ak ñaar fukk téeméeri noyyi ak ñaar fukk noyyi gu ne mi ngi tolloog ñaari laxsa ñaari gendiku gendiku gu ne nag mooy loo lépp loo mën a def te ñu mën la caa seetlu rek xamal ne làmm na ñetti mbir bu ñetti mbir yi boo ko deful rek jàppal ne mooy nga yàlla ca noyyi ga génn mooy bu benn noyyi génnee te tuddoo ci yàlla wala seetlaloo ko ci wala lim def neexu la ñett yi noyyi gu ci génn rek te dugg ci ñett yi dañu jàpp ne nit ki mooy na suñ borom kon bisi at mi mi ngi toll ci trois cent soixante jours waxtu yi mi ngi toll ci huit mille six cent quarante noyyi noyyi yépp nag boo ko boole woon daf lay jox cent trente mille cent trente six mille huit cent cent trente six mille huit cent moom la nit ki noyyi ci at mi bu dee laxasaal ji nag moom kenn xamul nu mu toll kon noyyi gi am na lu ko gën a suufee loo xam ne boo ci deful ñett yi ñu wax rek dañu jàpp ne sànq nga waxtu sëñ bi daan wax ne waxtu dafa am ay àq yoo xam ne dañoo war a sàmmanteeg moom suma muraat xuquqil waqti min jumlatil aadaabi inda sabti solos waxtu moo tax daan wax ne boo nekkee ab murid ba noppi amut taalibe boo noppee ak murid ba noppee amuk taalibe te bëggoo dara lépp rek di yàlla sa lépp di yàlla xamal ne yow yaay murid bi dëgg-dëgg takunu muridan thumma fiika iradatun ida lam turid shay'an fa anta murid loolu firin nañu ko dafa ñoo waxoon ne bëgg-bëggu murid moom wërta jëm kaw du weesu ay tànkam wërta jëm kaw daanne loolu liñ ci jublu mooy am murid buñ jàppee ne am na lu muy bëgg it buñ jàppee loolu nañ jàpp ne bëgg-bëggam lépp daf koy yamale ci waxtu wam nekk nga xam ne waxtu yu lay jéem a dundal bañ koo sànk ni ngay sànkee waxtu nag mooy nga xool la weesu nga cay deltu ginnaaw di ko gees wala ba noppi li ñëwagut nga koy xemmeem ak li ci am bëgg-bëgg bu rëy daan ne loolu laa doon junj ca la ba may wax suñ tubaab mooy wax ne loolu laa doon junj ca ba may wax ne xaqiqatul murid xaqiqatul murid yaa man yan xaqiqatul murid man yan xalib bi xukmi waqtihi wala yartaqib murid dëgg mooy koo xam ne day dundal waxtoom di ko jox ay aqam ba mat sëkk jàpp ne moom li ci kanamam ñëwagut te xamul la ca yàlla dogal mën na ko faa sax bañ a fekk wala yartaqib amaamahu waqtan fa inna daaka yamnau min islaaxi ma hunaaka daane zakarahu sayiduna muhammadu fi junnatil muridi ni'ma sanad kon képp koo xam ne mi ngi bàyyee xel waxtu ak ni mu amee solo jàpp naa ne ci cinq temps bi ñu def ci yu baree bari chômage bi am kenn ku ci ne di am looy xaar ci nit wala ci ñeneen mën naa bañ a am nit day fonk waxtoom lépp lu am rek lépp lu jot rek da nga koy def ca temps ba mu jote ca waxtu ba mu jote ca na nga ko manee ak it fa nga ko manee loolu mooy jëmale kanam am réew waaye fekkente ne ñëpp a ngi xaar rek ñëpp a ngi ñii ñiigal di di taswif lu baree bari mën naa bañ a sotti wala buy sotti it man heure ba muy sotti mën naa bañ a nekk heure boo xam ne day doon heure ba mu ba mu ñu gënale kon dundal waxtu ak di ko sàmm ci di liggéey ak di jaamu yàlla loolu day tax liñ bëgg lépp ci aw yiw liñ bëgg a gañe lépp day tax ñu mën koo gañe ndax nañ xam ne jamono waxtu xéewal la boo xam ne suñ borom daf ci xisaab nit ki bu fekkee nam ca jëfe rafetal na ko suñ borom fay ko bu fekkente ne nam ca jëfe baaxut suñ borom loolu daal di këpp wàcc ci kawam rek kon àdduna amuñ fi temps bu ñuy sànk amuñ fi temps buy tax ñu war a yàccaaral wala ñu war a tayeel ndax waxtu wiñ fi am jamono ji ñu fi am dafa xat waaye mission bi ñuy xaar dafa rëy dafa rëy te dafa bari loolu tax suñ tubaa doon wax wala takun zaaka salin idil xayaat muddatuha xalilatun faxshal fawat adduna li ñu fiy xaar dafa bari sëñ bi wax na ne kon waxtu dañ koo war a dundal domaine yi mi amit wax na ko muy lu baree bari daana wax ne guddeeg bëccëg ñaari jamono la fexeel nag ba ñaari jamono yépp na nga koy feesal ci aw yiw woo xam ne danga ciy wéet ak sa borom na nga jàpp ne la ngay def it yàgg yàlla nit ñi dañ la ciy gunge rek nit ñi dañ la ciy gunge rek wa anna al xalqa mushayyi'un kon lépp looy def na nga fexe ba na neex yàlla lépp looy bàyyi it noonu nee na na ngay wéetlikoo yàlla ci njëkk ngay dajeeg moom te booy boo nekk boo nekkee ci àdduna ak ba boo demee bay dajeeg moom loolu mooy tax nga mën a kontaan nga mën a bég léegi nag liñ mën a dundale waxtu bari na lool sëñ bi andi na ko ci masaalikul jinaan te sëriñ Ahmad Mbàkke Daarul Muxti dana ci waxtaan yaakaar naa loolu du jaar ñu ci sori kon dundal waxtu daal ci mu tasaw ci ñitti tasawuf yi dafa yaatu te mooy rek lépp loo xam ne da nga koo sadde faraax lépp loo xam ne da nga koo sakke ab widd ci jaamu yàlla ak jëf ju baax moo xam ay naafila la gannaaw boo joxee say farata moo xam woor la moo xam jàng alxuraan la moo xam jàng xasida la wala duruus yëkkati bu mu ci mën a doon baax na waaye mën nañuy dundale waxtu ci fàggu lu leew ak ci liggéey ak tamit fexe bay bégal ñi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel ci àdduna di xettali ñi nga xam ne dañoo lot di dimbale ñi nga xam ne dañoo néew doole di jàpp ci loxo yi ñi nga xam ne seen loxo jotewul seen ginnaaw kon noonu la ñuy dundale waxtu ci ni ko sëriñ Touba jàngalee sëñ bi daan wax ne mépp mbiru àdduna bu fekkente ne mënulaa àggale ci mbiri àllaaxira na nga xam ne baaxut lépp looy yëngu ci àdduna te yaakaaroo ci yool bu la mën a dimbale ci àllaaxira na nga xam ne loola du lu ñu war a di lu ñu war a dundale waxtu kullu amrin dunyawi ida lam yakun mimma yutawassalu bihi ila amrin uxrawi fa baatil daana wax ne daan dénkoon na taalibe yépp ne leen lépp loo xam ne amul njariñ bu ngeen koy def engagement boo mën a jël ak loo bëgg a def nay fekk mu nekk lu am njariñ wa laazimu rafd alladi laa yanfau wa baadiru linnafi xaytu yaqaw daa di wax ne bàyyi lu amul njariñ mooy lan mu ne mooy lu mel ne mooy yi sëñ bi mooy firiwaat ak neen yi daal ne lii moom murit bu ne da ko war a bàyyi rafdu kulli ma laa yanfau kal maasi wallaga mutaayinun ala kulli murid ab murid du fo ab murid du def lu amul njariñ daal ne ndax li amul njariñ lu mel ne fo boo ci boo ko boo takkoog moom daf lay lor daf lay lor li anna maa laa yanfau kallaxa yajurru mulaazima mulaazimahu ila maa yadur daan ne nag di di di engagé wu ci lu am njariñ lu baax moom moom dafay àggale nit ki ci suñ borom daan ne bokk na ci li amul njariñ nag nga xam ne mën nañ cee sànq waxtu mooy di wax wax joo xam ne du lambuut tudd yàlla ak di xool xool boo xam ne amoo ci soxla nga xam ne da ngay xool nii rek te yàlla tax ak di lekk te xiifoo lu lépp lu am njariñ la ak di tukki tukki boo xam ne da ngay tukki noonu rek da ngay gis nit ñi oto bi feesul rek nga yëg as safaru bila maslaha loolu ci la ñuy sànke waxtu la ak bépp yëngatu boo xam ne bépp yëngatu boo xam ne amul maslaha amul njariñ ci sànku waxtu la bokk daan ne bokk na ci yi am njariñ nag nga xam ne mën nañ cee dundale waxtu mooy julli juróom ak naafile yi ci di julli ak di woor ak lépp loo xam ne rek wóorut soppuñ ko waaye nga koy def te muy lu baax ci niñ mën a dundale waxtu la bokk na ci li amul njariñ mooy bëgg àdduna joo xam ne seetoo ci yàlla daan ne képp koo xam ne daf ne daa bëgg yàlla ba noppi boole ca bëgg àdduna na xam ne la muy wax du dëgg ndax daan ne li anna min chartil muhibbi an yakraha maa yakrahuhu mahbubu ndax bokk na ci charte ki bëgg mooy mu xool kam bëgg la mu bañ mu ko koy bañ le te yàlla nag kenn ku ci ne xam ne ne bëggul àdduna daan ne waaye nag sàkku àdduna ak bëgg ko ngir njariñ ngir njariñ moom loolu du bëgg àdduna daan ne lu mel ne nga jug di liggéey xëy amum xëy di liggéey ngir sàkk lu leew loo xam ne ci ngay mën a toppe yàlla loolu duggul ci bëgg àdduna loolu duggul ci bëgg àdduna duggul tamit ci sàkku àdduna waaye loolu ci bëgg yàlla la bokk ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax lépp lu lay dimbale ci nga mën a jaamu yàlla ci di ko jaar ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam loola ca bëgg yàlla la bokk ca bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam la bokk te kenn ku ci ne xam na ne fàgg lu lew ak di ko wut daf lay dimbale ci loolu moo taxoon mu daan wax walazimul ilma walazimul amal day leen jàng di jëfe bila ixtiraarin wal tufaariqul malal tàyyeel moom amul ci murit gi tàyyeel amu ci loolu it firi na ko ay yoon yoon kon daal nit dafa war a xam jamonoom xam waxtoom bañ cee sànk dara di xool tamit ay priorité mu koy def léeg-léeg lu baree bari moo lay xaar waaye ngay xool say priorité nga koy def lépp looy defit nga yéene ca lu baax ak sellal ndax kat xam ne faatu mën naa am ci waxtu wu jot waxtu wu ne nit ki mën na ca taqalikoo ak bakkanam te it xam ne adduna bi lu mu ci def rek moom moom moo jëf ja moo koy xaar ëllëg yowmal xiyaam bu fekkee lim def ci lim jëf ci adduna lu baaxoon la loola moo koy xaar bu fekkente ne ab safaan la it loolaa koy xaar sànq waxtu ak di ko di ca def lu amul njariñ lu mel ne di fo wala di wut alal rek rek rek te wute woo ko na ko suñ borom santaane wala di bari looy lekk wala looy nelaw loolu lépp dañ koy bañ loolu it sëñ bi wax na ko kun sa ishtigalin bi ilmi diini da amalin laa tuhmilil waxta fii lahwin wa tughyaani waxtu kenn du ko sànq ci ay fo ak i caaxaan in tafni umraka fii jamil xutaami wa fii ladaati nafsika taxsar ay xusraani bu fekkente ne da ngay sànq sa dund ci di dajale alal rek ak ci di topp lu neex sa bakkan na nga xam ne yow kuy perte yaa ko gën a perte faneen muy wax ne ayaa ayyuhal ixwaanu laa tuhmilu dahra yéen mbokk yi maa ngi leen di digal bu ngeen sànq waxtu wala tansawu dayyaana sirran wala jahra bu ngeen di fàtte yàlla na ngeen di ànd ak moom ci lépp moo xam muy ci lu feeñ wala ci lu nëbb wala tuhmilul awqaata bil akli wal kara bu ngeen di neenal seeni waxtu ci di lekk rek ak di nelaw wa takthiri mazhil xawli bal kathirul bal kathiru fikra ak di wax waxi caaxaan nit bu bëggee wax am na lu mu wax lu muy wax mooy tudd yàlla wa man ahmala al awqaata fi gayri taatin fa sawfa yulaaqi llaha fastaamilu fikra képp ku jëf képp ku jëfandikoo waxtoom ci lu koy sànq ci loo xam ne du ak topp yàlla na xam ne ëllëg yow man xëyam dana taseeg suñ borom kon nag lépp looy jëf wala nga koy wax dee ci xalaat xam ne lii moo lay xaar ne nag wa man laqiya arrahmaana jalla jalaaluhu bi gayri lhuda yahlik halakan wala zafra képp ku taseeg suñ borom te jaamoo ko nam ware juboo woon na xam ne perte nga na xam ne perte na wa man laqiya al mawla bi kibrin ma arriya képp ku taseeg yàlla fekk ay jukko yu ñaaw nekk ci yow lu mel ne rëy ak ngistal yu'azzab bi adlillahi fastab'idul kibra kooku bu demee suñ borom dana ko mbugal mbugal moo xam ne da koy jaare ci ak maanuteem danne nag ku bañ a dugg sawara bu mooy yàlla bu mu ko weddi wa man sa'ahu an yadxula annaara fi gadin fala ya'si mawlaana wala yakfuran kufra ku bëgg a am li nga bëgg lépp bëgg a am àjjana bul geestu nit ñi na yàlla tax ngay def wa man sarrahu naylul amaani bi jannatin fala yaltafit linnaasi fi sa'yihi turra képp kuy def ngir mbindeef yi na xam ne sooy na na xam ne yaakaaram tas na ndax kat nit ñi mënuñ laa jariñ mënuñ laa lor wa man kaana yasaa lil baraaya fa xaaibun li anna al wara lam yamlikoo nafan li anna al wara lam yamlikoo nafan aw durra daan ne kon yéen taalibe yéen mbooloo mi maa ngi leen di dénk ngeen di sàmmanteeg seen waxtu ci lan ci topp yàlla ayaa xaw mi duumu kulla waqtin wa saatin ala taati arrahmani kay taxrusul ajra kon daal bayit yi mën nañ cee gis ne di saytu sa waxtu ak di xool ni nga koy utiliser am na solo lool ci wàllu économie ndax waxtu rek mooy nattuwaay bi nga xam ne ci la nit ci mën a nattoo ci lañ mën a nattoo réew yépp adduna bi yépp ci waxtu lañ mën a nattoo ndax am réew wala nit avancé na wala avancé wu ndax nit am na réussir wala dafa échec moo xam muy mbooloo moo xam muy kenn kuy def ndax lu tolloog li nga jëflan li nga jëfandikoo waxtu rek lu toll noonu ngay amee réussir waaye lu toll noonu tamit ngay échec boo xoolee réew yi nga xam ne ñoo gën a mën a utiliser waxtu gën koo mën a exploiter réew yooyu ñaare ñooy gën a am avancement réew yi nga xam ne dañoo deltu ginnaaw nit ñi gën a réussir tamit ak nit ñi nga xam ne dañoo yemamaay ni ñu leen di xamee mooy kenn ku ci ne ni muy jëf ni muy jëfandikoo waxtoom kon amul kenn ku réussir ci àdduna gi ci luñ mën a gis ba noppi ñu xool gis ne da daan sànq waxtoom amut ndax nit mënta réussir ba noppi exploité wut source bi gën a rëy ci ay source yi nga xam ne ci la mën a amee réussite te mooy waxtu mooy temps kon yëg am yëg-yëg ci ne waxtu wi day dem te it noo ko utiliser noo ko jëfandikoo noona nga cay amee ndam loolu lay tax nation bu ko bàyyi xel société bu ko bàyyi xel nit ku ko bàyyi xel day tax lépp lu muy def ak lépp lu muy bàyyi daf na ci bàyyi xel waxtu wax moo tax toujours ñaare lépp lépp loo gis rek ci ay jaamu yàlla wala ci ay jëf yu baax dañ koy limiter ci ay waxtu gis ngeen koor gi dafa am waxtu muy commencer am waxtu muy jeex am diir bu muy bu muy tàmbali am diir bu muy yam julli yi noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ni ñuy utiliser suñu waxtu ni ñu koy jëfandikoo toujours mi ngi dellu ci ban gis-gis lañ am ci waxtu ban gis-gis lañ am ci temps ndax gis-gis boobu dafa bari yu koy dafa bari yu koy yu koy orienté léeg-léeg éducation bi daf ci am solo nit ñu yare dana tax ñu fonk waxtu dana tax ñu neenal waxtu léeg-léeg tamit xam li ñuy xaar xam li ñuy xaar dana tax ñu xam nu ñu war a jëfandikoo suñu waxtu xam li ñuy xaar xam ne ay défis yu mag ñu ñuy xaar xamit li ñu bàyyi ci àdduna dana tax ñu xam ni ñuy jëfandikoo suñu waxtu xam li ñu bëgg it dëgg dëgg dëgg dana tax ñu xam ni ñuy jëfandikoo suñu waxtu waaye tamit am engagement am bëgg-bëgg bu dëgër dana tax ñu xam ni ñuy jëfandikoo suñu waxtu xam suñuy priorité ak ni ñu ko war a nose dana tax ñu xam ni ñuy jëfandikoo suñu waxtu kon nit toujours dafa war a tege ci programme programme nag mooy rek nekkul ne damay def jëf joo xam ne amut fu mu yam déedéet waaye programme mooy waxtu wu ci ne daal danaa ko utiliser noo xam ne moom bu soob yàlla bu jàllee danaa xam ne sànq mu waxtu yi loolu mooy tegu ci programme loolu nag li muy indi mooy day tax lépp loo def day rafet day taaru day naat loolu day taxit loo day taxit loo def lu mu néew néew day day am njariñ day am njariñ organiser sa waxtu tamit dana tax waxtu yi nga xam ne defoo ci dara dana tax nga mën ko utiliser ndax boo gisee koo xam ne damaa ñàkk jot damaa ñàkk jot fi ne nii xamutuma fu ma jëm xamutuma lu may wax ñaare koo gis mu koy wax rek xamal ne organiser wut waxtoom ndax saa yoo organiser sa waxtu da nga am ay faraaxaat da nga am ay vide yoo xam ne da nga ca mën a jariñoo vidéo yooyu ci loo ciy jariñu mën nga ko jariñoo ci gën a renforcer yi nga xam ne xam na xam nga ne manqué na ci yow am na ñoo xam ne ci wàllu spirituel lay nekk seen wàllu ruux boo bu fekkente ne ab liggéeykat nga boo xam ne da nga daan mën ngaa liggéey wenn quatre heures mën nga ko nos ba mu nekk wenn heure bu ko defee quatre heures de temps yi ci des nga koy duruus di ci jàng alxuraan di ci jàng xasida kon organiser waxtu loolu lay jariñ ndax loolu boo amul rek vide bi lim la mën a jural mooy daf lay tàyyeloo daf lay indil stress dafay taxit nga yokkat day taxit nga yëg ne dangaa sonn kon daal saytu waxtu ci nañu ko suñu Tuubaa jàngale bu ñu ko defee danañ mën a gañe ñaar li suñu bëgg-bëgg àdduna danañ ko mën a sottal waaye suñu bëgg-bëgg ak suñuy càkkuteef ci suñu diggante ak suñu borom danañ ko mën a sottal dana taxit ñu mën a jëmale kanam suñuy jëmm li ñuy waxtaan mi daatiya développement personnel ci wàllu ruu ci sa digganteeg sa boroom ci sa digganteeg nit ñi ci sa digganteeg yu baree bare boo organiser sa waxtu da nga ko mën a am ci gàttal dundal waxtu dana tax ñu mën a am tawazun équilibre ci suñu digganteeg àdduna ak suñu digganteeg suñu borom suñu fan lu mel ne ne des na lu bari waroon nañu ma mën a waxtaan ci al mubadara al fardiya engagement ndax loolu gis nañ ne yitteel na murid yi waroon nañoo mën a waxtaan ci niyatul xayri yéene ñëpp lu baax ak impact bi mën a am ci économie ci ni ko Sëriñ Tuubaa jàngalee waroon nañoo mën a waxtaan ci jàpp ne ñun ñëpp lépp ñoo ko bokk ak impact bi mën a am ci économie waroon nañoo mën a waxtaanee xiimatul isaar li nga am bëgg ko jox ko sa moroom impact bi mën a am ci économie waroon nañoo mën a waxtaanee tamit dëggu impact bi mën a am ci économie ak wàllu maanu waaye yooyu yëpp xam naa waxtu bi du ko mayee mel ne ne heure bi jeex na dañu ne woon rek comme lañ fi doon waxtaanee léegi bañ a sànk waxtu yi liñ lépp loo xam ne romb nañ ko it mu am njariñ moo taxoon day bi gis ne ginnaaw Serigne Abdou Lahad ñëwut nañ xool rek tomb boo xam ne mën nañ cee laabirante fàttalante ji bu ko defee ñu laabirante fàttalante ji maa ngi jéglu ñëpp di sant ñëpp di jéglu ci kàddu yi lu ci jub suñu borom la ak ci mbaaxuk sëñ bi lu ciy dëng ci suñu matadi la wasalaamaaleykum wa rahmatullah